jërë ngeen jëf euh, sunu mbokk internet bu 221 people am nañu cant ngërëm bu baax di leen di siyaare bu baax a baax nag tey ñu fas yéene dalal fii benn kàngam di sëriñ di suñu xarit di suñu ñu koy tuddee sëriñ Moustapha Dieye nga xam ne kenn du ko présenter te ci biir réew mi raw na diaspora bi ak euh, mën naan suñu site bi di 221 people tey nag moom la ñu fas yéene dalal ñu war a waxtaane ci lépp loo xam ne rek jëm na ci xam-xam ñu wéer ko ci ngir jaamu yàlla waxtaan am loo xam ne dinañ ko jëriñu sëñ Moustapha dañuy bàyyi nga nuyoo ko mbokk askan bi. waaleykum salaam sëriñ bi di waxin ñëpp asalaamaaleykum di leen ziar. <laughs> di muslu ci seytaani nag tey baalu xàq ñëpp <laughs> di ziar ñëpp rawatina mbokk yi niy teewlu waxtu wu ne <laughs> amuñu seen fay di nuyu soppe yi di ñaanal soppe yi mm, di ñaanal noon yi ndax mm-hmm. lu am solo la di wax ni sang bi di seet ñi ne ci hôpital yi di leen ñaanalit wér di ñaanal ñi caabi féete ginnaaw ak ñi ne ci xat-xat gu mën ci doon mm-hmm. di ñaanal lit ñi tëdd ci biir suuf ndax soxla nanu ko yàlla yërëm leen xare leen aljanna mm-hmm. di wax sëriñ bi ñi ngi ziyaar ñépp nag tey baalu xaq di wax aleyku salaam wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Moustapha Dieye ñu ngi lay fay bu baax ginnaaw sa nuyoo yu set yu sell yooyu ànd ak dal ñu ngi lay fay bu baax di lay dalal ci site bi ñu fas yéene waxtaan comme ni ma ko waxee woon ci benn rek mais daam fu ñu tàmbalee ndax jamono yi ñu toll xel yi yëpp ñu ngi ci màggali dem Touba nit ñaa ngi ci préparation bi macha allah comme ni ñu koy defee saa su nekk at mu jot fi ñu tàmbalee mu di kilifa gi kii di Cheikh euh, Mountakha Bachir Mbacké nga xam ne moo nekk ci xilaafa gi di euh, xalif général kulli moom yëkkati na biral na benn mbir di xibaar boo xam ne for nañ ko kii di soxna ay Aida jàlloo moom aaye na aaye na ko maanaam lépp loo xam ne dajaloo ni mu koy defee comme at yi passé te neexu woon nit ñi dàq na ko su fekkee ne dégg na ndigal bu mu ko def ren ci tey bi nga déggee loolu yow nan nga ko jàngate ak nan nga ci mën a jàngale waaw day sëriñ bi ni mu ko mën a jàngate mooy tuubaa ba muy tuubaa ba léegi dañuy tënku ci ndigal mhm. ci ñi bëgg a tënku ci ndigal nag mhm. ndax sëriñ bi waxoon na benn jamono wax ju am solo mu ne jamono deme na noo xam ni nag am na loo xam ni dañu koy bàyyee nit ki mhm. waaye am na loo xam ni nag ah dafay laaj leneen waaye bu doon deme na neneen ca lislaam man di sëriñ bi moom soxna ay damay jigéen mhm. bu doon góor la sax dégg lii mhm. na bàyyi lépp lu mu jàpp mel na ñépp baa wara mel ni ñépp baa bëgg mel ni ñépp mhm. ndax sipson bi bëgg am bu dee sëriñ saalihu ne woon na fi amu ko Cheikh Mouhamadul mu euh, Cheikh Sidil Mokhtar ne fi amu ko. ci mhm. moom. sëriñ mhm. Serigne Mountakha mi nga xam ni waxam lu néew la. Mhm. jëfam lu bare la. muy doon kuy rafetale nu ne nag. di bëgg lépp doon benn. su waxee rek. même bu nu ko waxloo woon it sax bu nu ko waxloowul wax jot na. ndax demul dikkul nag. waaye mën na xam lu bari ndax jamono ji fi mu toll ak mbir yi jamono ni mu demee mm -hmm. Ayda lu mën a jàpp ab ndigal moom mooy lépp mm-hmm. ndigal gi nag man li ma jàpp mooy mm-hmm. fexe ba njabootu seex beccu gi ànd gis nga bu nu àndoon mm. di xàccandoo mm-hmm. dóorandoo giñ naa ci rasulillahi seen moome bàyyi ga lu mu neex neex seen moome gee koy dàq. macha te sëriñ bi it ci saayir rekk laa la wax de. Mm-hmm. loolu la gën a teg bëtam ñii jaar fii ñee jaar fële. lislaama njëkk a àtte ba seddale ni cër yi tolloo ci góor ak ci jigéen. Mm benn rek mi ngi noonu. màggal nag sëriñ bi moom ni mu ko waxee. Mm-hmm. ndax nee na terewul kenn màggal ndax sant rekk la. Mm, sant leen waaye façon gi. Mm-hmm. ba mu waral mu njëkk ci wax. nanu bàyyi xel teel wax jëm ci teel a wax kon ñi koy bàyyi xel lu yàgg. Mm-hmm. kon nag man daal bu dee déggal na ma. te jàpp naa ku ko bëgg it dana ko déggal ndax ab ndigalay lépp. Mm-hmm. mu jël lépp la mu yéene ca màggal ga nag. bu mu ca bàyyi dara. Mhm. ndax togg ak ñam. bernde ko jox ko jaami yàlla yi wàññiwul dara. tawféex la. Mhm. Mhm. waaw nga jël lépp bu dee jëmmi yàlla jéeg jëmmi sëriñ Tuubaa rek a tax ba ngay def doo ca wàññi dara. dara du la ca déranger. ndax ku ni ndigal ngay wéyekat te sa kilifa gi la jiite woon ci ndigal la doon wéye ba bu laajee raam mu raam. sëriñ Béthio bis bi yaram gënee daw mooy banu naan ko wàllu seex yi mu ne sama seex gi sax sunu bëggoon ma dindi ko <laughs> kooku bu déggoon ni e, màggal gi du deme doo ko defee nii moom lu mu metti metti dana ko jéem a jël rawatina nag su jógee ni mu demee mm-hmm. man daal dama koy wax ni bu dee bëgg na njëglaay ndax am na loo xam ni mm-hmm. sëriñ bu aay mënu ko défense mm-hmm. taalibe yu bare mënu ko défendre milliards yu bare mënu ko défendre te ba dafa doy waar mhm. murit ni mu toll murit yi bootu ci koo xam ni dañ la joxoñ ni la yaay sëriñ Tuubaa mhm. mu am lu mu tere ràññee la ci mbooloo mi te kenn mënu leen xayma nu nu toll mhm. yow loo jàppoon dellul gannaaw man foofu rek laa koy wax ndax lu dul loolu danger mën na am sëriñ bi te danger bi yépp ci moom moomu la man de bu doon man la ma ni sant naa yàlla bin may bàyyi xel ba teel ma ni ma fii ngay yem damay sax génn def déclaration sant sëriñ bi gërëm ko jël la may am lépp a baaxee ko ko ni ko bu la neexee sax du ma génn su ma néeg giñ naa ci rasulillahi daanu ko gën a jàpp moom moomu te baam dana gën a yokk te cër bu mu amoon benn dana ko am fukk mhm. waaye bu demee neneen jéppiwante dana am te sëriñ bi nag amul jotu di ko jéppi mhm. waaye mhm. taalibe yi mhm. ak mbir ya ak na muy demee dara jaru ko sëriñ bi tarkalla jërëjëf ndax bopp Serigne Touba benn rek du ñaar du ñett du dëgg la. jërëjëf euh, sëñ Moustapha yi am na solo bu baax ci ponk boobu ni nga ko leerale ñuy bàyyi site bi ñoo ñu gën a ëpp dégg-dégg mhm. ndax gars yi moom euh, tarkaal la dañuy bàyyi site bi lu am lu bëree bëree bëree mhm. bëri dinañ ko am jàngat buñ ci def daam fu may dugg nag mu dee rey bi nga xam ne bëri na ci biir réew mi tarkal la rey mi moom. foo ko romb mel na ne sax yàlla mi ñu sàkk ci boppam sax gars yi sax moom dañ koy mujj fàtte rey bi metti na bëri na ñaaw na ñu del si ci lan nga ci àddu sacrifice yu bare ak sëriñ siy def ñaaw téef yi hmm? ndax réew mee ngi toll ci sacrifice <laughs> réew mi ngi réew da daan toll ci sarax. Hmm. réew mi ngi toll ci sacrifice. réew mi ngi toll ci sacrifice. waaw toll doy waar laa lay wax. doy na waar borom baatin yu bare dem nañu. Hmm. <laughs> te mhm. Sidi Lamine ñas moo soqi gaa yi mhm. lu garaaw laa lay <laughs> am na domaine yoo xam ni nag boo ko xamul mënoo ci sore mhm. <laughs> kilifa yaa ngi dem rek ci demin woo xam ni du aas du at yàllaay rey nag waaye dafa am yu mënul fekk te nar ko fekkee dema leen ko gënal ndax ku ci nekk sa dem leer na la li ma la mën a xamal mooy sëriñ bi mhm. ray gi mi ngi mel ni tulleeg màlle am nay jamono yàggul dara ñi naan xoolal léegi kañ nga gëj a gis ba bëccëg dóori bali fetal mhm. baa gàddu paaka jam sëriñ bi loolu kañ la gëj am da yaakaar loolu neen la giñ naa ci alxuraanul karim pourtant njiitu réew mi fi ne dafa am ful <laughs> Mm-hmm. kon lu tax muy deme noonu. doy waaw pour lan waruñu ci am taxawaay. seetlu pour lan nu bàyyi ko nii rek pour muy wéy. na kon lan mooy lëndëm ci biir lan la. dan war seetaan rek diw rendi nanu ko yóbbu nanu ko ub nanu ko yomba na. il faut ko natt moom. waaw pour lan léegi mënuñu toog ni peine de mort wax nu dellusiwaat ci. walla kon rey ji réew mi dafa soxla derit rek nu bëgg du continuer dinu rendi rek ba kañ. léegi kilifa yi rek. xoolal xam nga diw ni nu nàngam ni nu danu ko agressé xam nga diw ni nàngam ni nu nit xool la jàkk amul lum la yéene yëkkati mool ni ko réel la. xam nga diw yàggul dara yàggul dara Ouest Foire gi. benn góor luye na nit sax ci këram as asafila benn soxna ci këram soxna si. wax ko baat bu naqadi ba mu jaaree fa dee dee googu da yaakaar sax neen la ak yeneen sëriñ bi xoolal li ma lay wax kilifa yi dem xamoon nu mu ah, toll ren ji nag waaw xoolal ndox mi ni mu demee xoolal yenn yi ni mu demee metti na ah waaw am yoo xam ni kenn sëriñ bi neexul sax di di, wax <laughs> nu war taxaw seetlu ana boroom xam-xam yi <laughs> foofu la wax ci ne dañuy raay raayal wax ji wala sëñ Moustapha dafay toog rek pour le duunal xam nañu lépp billaahi réew mi ni mu tooge baaxut. li nga bëgg a wax mooy lan. non non doxut doxul mooy. Mhm. wallahi al azim ni ruu yi amatul sécurité wallahi amatut toogaay bi baaxul de xam nga réew da ko daan jiite aar ko. Mhm. réew mi aaroo bàyyil xel li ma la wax. Mhm. président Mali bi ak Macky Sall ñoo àndoon bi ni suuli eh, Ousmane lan moo jële président Mali bi Mali ci ay coow kon am na gànga bu feeñoon boo xam ni nit ñi jàngatuñ ci woon te pourtant waxtaane woon nañu ko ni. oto bu jékki-jékki tàkk. waaw dañu ju dañu fàttali seen oto bi am na nu mu defoon. waa déet fa waaw fa waaw xam nga loolu. <laughs> fàtte ka tey fàtte ak ki nga xam ni lii du looy fat waaye yow mi bàyyi xel jël sa xel mii ni ko jàkk ci àdduna bi ni ko jàkk ci réew mi di bàyyi xel ñi ni ci réew mi ñi jiiti réew mi mhm. man duma ko fàtte ndax dama koy bàyyi xel te ñaar ñooñu ànd ma lay xamal mm. kenn ki sëve na kenn ki Macky Sall ak euh, njiitu réew Mali bi àndoon bi ni kiiwee mm. wër na rasulaay kenn ki sëve na kenn ki <laughs> benn nu waroon ci jàngat lu baree bare sëriñ bi su ma nee la rek réew mi toogaay bi baaxu rek xam naa li ma lay wax deret jaa ngi tuur yaa ngi gis yu kenn xamut léegi nit a ngi génne nii rek waaye danger lay génne na génn rek waaye xamul nan lay delloo si ci këram mhm. nu war ci am taxaw bu rëy sax sëriñ bi mhm. billaahi wallaahi watallaahi loolu sëriñ bi doy na kenn mënu ko wax tarkalla gis nga foofu nga daaneele sax euh, sëñ Moustapha <laughs> mhm. foofu laay duggee ndax euh, comme ni nga ko waxee mhm. dee gi bëri na rey gi bëri na mhm. agression bi bëri na mais sàcc yi loo waaye wax wax wax sàcc gi léegi dafa bëri de waaw sulli armée yi sax dafa bëri léegi ah, kon sàcc sàcc ba ci sulli armée fi mu ne nii waaw xam nga lu tax subhanallah sëriñ fiti sër yi ñu ngi ne xas ci réew mi te ñi leen fiy dugal boroomi doole lanu hmm? di la laaj baaraami néew baa néew baa xale boo xam ni temps la am baa yeneeni mbir ci musiba sëriñ bi nee naa la sàcc yi guddi lañ daan sàcc léegi bëccëgu ndar kam léegi lu war a réew mi balaa mhm. bal daanaka ngay wax sàcc yi léegi fan la ñuy jële goon ah, doy na waar de de moom lu jar ah, bàyyi xel ñaar fan la koy jële mhm. ni ñuy def ba loqate yàmbaa di ko génnee lu tax manu nu koy génnee waaye balaa nuy jàpp sàcc yu yor goon rekk il faut nu kàmba kàmba kàmba kàmba kàmba ba dugg ci kàmba ne soogay ne nu yoroon nanu raskul gendarmerie police nag jàmbaar lanu mhm. dëkk fa neex yàlla man dama leen ni bàyyi xel bu baax bàyyi seetaan sax seen émission jàmbaar boobu. Mhm. waaye li ma la mën a wax. Mhm. kon xam nga ni maa ngi xel bu baax. li ma la mën a wax mooy sëriñ bi. Mhm. ci boppam. ñenn ñi yii nii def. du seen sagoy am na ñoo xam ni. ay gor la woon. waaye fii nu toll baat wala pire la nu. laa lay wax de. dëgg na ñoo xam ne. ma sunu xam luy sàcc. kon lu waral nii sàcc. loolu moom na waar. affaire la moo sax ma ne la réew mi toogaay bi doxut jotaay bi baaxut na boroom réew mi. xoolaat dimbaliwaat réew mi waaw. bu baax sax sëriñ su ci bëggee mucc nu muy def boroom réew mi. waa xam nga sëriñ bi. Mhm. Euh, gis nga bu la nit ñi di yéene leen rek. Mhm. bàyyil xel sa bopp ci loolu. toogoon na ba tàyyi dégg ne naan soxnaam dafa feebar feebarut ba ma ni woon war na feebar ndax nit la comme ñun dañuy feebar. Mm-hmm. waaye gis nga nit bu ñu lay gàngal rek. Mm-hmm. gàng jooju bàyyil xel. ba mm-hmm. gën a aar sa njaboot. jàmbaar la nag mi ngi def waaye na gën a dimbali jaam yi sëriñ bi. ndax man xam naa ni réew mi. metti na doy na waar. Kër Masaar gi boo fi demee fi mu toll. sa yaram yépp daw. yow dootoo bëgg sax <laughs> wax ni. fa fii nga jógee ndax ah. lan mooy la ñuy dund. Mhm. na mu mettee na mu taree na mu doyewaar. tar na tar na tolluwaay réew mi moom fan nga mënul wax. Mhm. fan. kay tolluwaay réew mi moom foo natt moom dafa doy waar sëriñ bi metti na xëccoo suuf dina xoolal rek at mi yi fi xew yëpp. xëccoo suuf gi mel ni tulleeg màlle. Mhm. borom doole yërëmatunu kenn. waaye ku ci am jàngat. xoolal corona bi. <laughs> kilifa yi rek lay kor. nga ma. wóor na rasulillahi lu leer laa la wax demal ci xool internet bi intellectuel yi rek fa dee. kay lu leer laa la wax tey na xel yi daal tey na xel yi en tout cas yàlla daal mi ngi rëq yi ndigg te li ma lay wax nii. Mhm. njàngat la ci ñi fi des. jàngat la ci ñi fi des. Mhm. nu bàyyi xel lépp. man léeg sax ma ni feebar bi du feebaru baadoo la. yàlla nag. lan mhm. la ci jublu loolay wax ji. waaye li ma la mën a wax daal mooy. Mhm. war nañu dawalaat yërmande. ndax fiin tool moom sëñ bi. Mhm. réew mi fooy tollu yàq-yàq gi rek weesu na ko. Mhm. dara waralu ko nag. njiit li yërmande gi nu soxla ci moom. bu ko amee it ñu topp ci gannaaw amuñu ko. am na député bu nu dóor fan yii dóor yu métti maam jaara fam xaw ma. wane li am sa koñ dafa jarri dóore mais ci nguur gi sax duñ fi dëlsee ba léegi mu mel ni seen biir mën na ni xiiroo ngaayo tullee male waaw benn opposition bi mën naa ne oppos euh, opposition bi seen biir jubawuñ dooy xool gis nga nguur gi it ñi leen jiite jubawuñoo ak ñoom kon kon kon ci ci ñan la nit di daw mën leen a bàyyee xel pour réew mi ñu mën koo jubbantewaat waa xam nga yàlla dafa wax ci alxuraan ni ni ngeen mer rek ngir lu mel noonu laa leen jox hmm. ñun nag suñu jikkolee dafa ñaaw de <laughs> xaw ma dégg nga wax jëm déet fitna yii nuy dund hmm. dara waralu ko de da ngay jóge fii dem ci Serigne Moustapha ni ko liggéeyal ma usmaan walla Assane maa hmm. bëggul mu dem lan lala def nga ni ma demam moo ma neexul sëñ <laughs> Moustapha moom dana bañ baa mu nangu mhm. mu dem ci keneen sax ka mu koy waxaat déggul wolof mu jaral ko ànd ak nit ba mu yegg mu ni ko loo laaj naa la ko jox ki mu àndal di ko taraa diiral muy wax bu paree mu jox ko benn fukki junni fay kële juróom ñett fukki junni liggéey fa doomi jaamur xoolal léegi li ma lay wax dof yu silwiise ngay gis te bu njëkk dof bu dofe moom nga daan gis mhm. xaw ma dégg nga wax jëm déet <laughs> moo tax man la sëriñ bi fi mu kilifa yi boo demoon assemblée be kilifa yu bari feebar noonu feebar gi mooy lan mooy. Mhm. du wax waxi nit. saagante. waaw gàjjante. xiiroo nga ba ci opposition bi xam ni nga ko waxee moo tax ma ne la. Mhm. fii nu toll nii. Mhm. yàlla na nu yàlla dolli dimbali suturaal nu. waaye daal nanu ñaan yàlla rek mu dimbali nu waaye réew mi daal feebar na. jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha mooy famu mu daaneel réew mi moom feebar na to xam naa ñaan yi ak euh, tolluwaay yu bari daal soxla na ko il faut gars yi di ciy def tawfiix rawate na ku ci mel ni yéen dama naan la xam naa tey rek du fekkee ne am na loo waroon a tëjee hmm. jëmale ko ci réew mi jëmale ko ci nit ñi hmm. lan lay doon sama mbokki sëriñ si laay njëkk a nu bàyyi ñetti mbir mhm. benn mhm. xastante Mm-hmm. du cëru sëriñ du cëru nit ku nu yaakaare mm-hmm. nit boo ko waree wax dëgg baa mu def lu jaaduwul mm-hmm. fa nga gis numéroom gis fa jëmmam bu dee lu baax ak suturaa la tax a jóg woo ko téléphone bu dee dëgg ci yow du xol boo xam ni day zalu woo ko telefon nga waxtaan ci ak moom su la déggul mu jaral la sax déplacé wu ba yegg ba mu xam ni jar na ko. Mhm. dana am lu muy jariñ. beneen bi ci tegu mooy. Mhm. ba ma cay dolli mooy sëriñ bi. Mhm. am na détail yoo xam ni yàgg naa koy wax. diw dem sa kër naan day daanu rabak day nangam sàngam yoo xam ne ay détail yu fola <laughs> li ma lay wax baatin la. neewoon naa la fii ña koy def. bu ne xayya seen làmpi daanu melaat na sondeel ndax du dëgg loolu man d'accordu ma ci mhm. loolu dama ci am responsabilité war ci wax wax ci mhm. loolu du lu may wootante téléphone mhm. waaye diw xam na nangam diw xamul nangam lii lay def moom man yooyu d'accordu ma ci bokk waxuma nag affaireu naxaate xam nga loolu lay dénkaane di waxit nit ñi gën a génnee sarax sarax Mhm. surtout lu weex. lu weex. lu weex. lu weex tàll moo xam ceeb la moo xam soow la moo xam. sëriñ bi ñaareel ba ca tegu mooy. Mhm. nit ñi ci jamono jii nu toll. Mhm. nii faral di saxoo njàpp. njàpp. waaw faral di saxoo njàpp giñ naa ci rasulillahi ku ko saxoo. wallahi alazim ni yàlla dana la suturaal ci yu bare ak nu jóg aar sunu njaboot ndax sëriñ bi jamono jii may wax ak yow. sacrifice yi bare na torop. doy torop lii daal lay dénkaane. Mhm. yi am amit yéene ak di ñaanal yàlla defal leen tawfiix defal leen ndam defal leen sutura. Mhm. di wax ni wax ji nu wax. lépp loo xam ni sax nit gisee na ko neneen ñi ngi koy jéggalu mhm. lu baax lañ ci jublu ak teg kayit fi ko war a teg ndax xam nañu li ñuy wax lu mu. mi noonu salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi jërëjëf